ñoom am naa naqar waaye yéen mu ëpp naqar yéen ñu bokk moom société ah Ablaye nag tubaarkàlla tubaarkàlla la yàlla mu ko ca jiitu xale bu baaxoon la ku ma yërëmoon la ku ma iiroon la ku ma aaroon la gannaaw yàlla maa ngi koy sant nag di ko gërëm yàlla suuf sedd ci koom man nag maa ko jur nag waaye des ma dara lu ma metti fonkoon na fonk ay rakam bëggoon na bëgg ay rakam yàlla suuf sedd ci koom xale bu baaxoon la xale bu amoo yërmande ci waajuram ku bëggoon waajuram ku bëgg ay rakam ku ma bëgg ku ma bëgg te yàlla tax yàlla su sedd ci koom yàlla su sedd ci koom. moom lan moo ko daloon exactement. ah wax dëgg yàlla dafa feebaroon rek du xam ah feebaroon nag feebar bi na man xamul lu ko doon ndax xam nga ñun mag ñun duñ lijjanti loolu xale yi dañoo fa daan dem ak loolu waaw. kon nag mais est taxawaay bu mat ñi nga xam ne jege woon nañ ko ak li nga xam ne moo foofu la doon liggéeyee. Ah, defoon nañ ko ci moom tubaarkalla tubaarkalla tubaarkalla taxaw nañ ko taxawaay bu baax taxaw nañ Youssou Ndour taxaw na ko Bouba Ndour taxaw na ko Ndiaga Ndour taxaw na ko tubaab solo Birane Ndour ñëpp macha allah macha allah. bu ba nee say waa Fetis daal ken amul lu mu leen waxee lu may sant leen ak gërëm leen kese waa Fetis Média moom laaw la cat. lan moo ba bëtam ci moom ndeysaan boo xam ne rek loolu rek la la bëggoon a bëggalee yàlla tey weddi. xanaa kër kër rek. jooy yal na ko yàlla yërëm paree ko àjjana sa yaay kër rek loo mu ne damay tabax sama yaay man day jàmbal balaa taxawal kër. ah. yaay bi ñu bu baax a baax ñu ngi lay masawu c'est ci kawam. kër dong moo doon mébét ak man. su ma fekkee ma yaay bala ma am jàmbal dama dugal ci kër. bala ma am jàmbal dama tabax kër dugal la ci. waaye yàlla weddi na. lii neex suñu borom. yàlla neex rek lay def. jëruñ dara yàlla moo moom nga doon def nii yàlla suuf sedd ci kawam jërëjëf ko mujjee gis balaa muy génn àdduna lan la la waxoon ah lii rek su ma dundee rek yaa ma dundee ba génne fii li nga xam ne lépp dëgg la su ma dundee ba génn si loo bëgg rek loolu laa lay defal ma ko ni nga ci génn ah waaye ma fa mujjee dem moom na ginnaaw rek bañ xool kon nag ginnaaw nag bañ maa xool ma xam ne kii dem na. nangu la woon xool benn yoon nangu ma xam ne kii dem na. ma ne xale yi ma ñëw xale yi ma laaj ma leen garaawut. mu ngi sant yàlla baax mu ngi sant yàlla baax. dëkk te yàlla moom bañ na.